la parole à, au président Abdoumbaou. Ndiagagna, le suivant. Abdoumbaou, 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais commencer par saluer le ministre Omar Sarr l'encourager, le féliciter et vous souhaiter la bienvenue, mais aussi tous vos collaborateurs. Je commencerai par euh, donner quelque chose que une de mes collègues qui n'a pas pu prendre la parole, Maïmouna Sen, m'a demandé de vous dire, Monsieur le ministre, je le cite, le député maire de Gender raconte des histoires parce qu'il confond la zone de recherche et d'exploitation du zircon dans les dunes de sable de Kayar qui s'étend jusqu'à Diogo. L'État accorde des permis de recherche à toutes les sociétés qui veulent investir dans le domaine des mines. C'est valable pour le pétrole et le gaz et pour d'autres ressources comme le zircon ou l'or, le le fer. Le président n'a pris une seule parcelle de terre dans la commune de Djender, encore moins 7000 hectares. Fin de citation. Monsieur le ministre, pour en au sujet, je voudrais d'abord rappeler à mes collègues que le président Macky Sall a au cœur de sa politique le problème des mines. Pour rappel, ici au niveau de la première législature, on a voté 153 lois Le 120e, c'était le 30 octobre 2016 et c'était une loi portant sur le code minier. Au niveau de la 14e législature, avant même, il y a eu le référendum de 2016 qui a une propriété au peuple des ressources. Le, une loi a été votée le 24 janvier 2019 portant code pétrolier, même si ça ne concerne pas votre ministère. 79e loi au niveau de la 14e législature portant création d'une société dénommée Société des mines du Sénégal, SOMISEN, je reviendrai là-dessus. Et 84e loi, toujours au niveau de la 14e législature, portant loi d'orientation pour l'aménagement durable des territoires, parce que ça permet maintenant qu'on puisse savoir exactement où se trouvent les mines. Et 150e loi, pour terminer, relative au contenu local dans le secteur minier. Cela montre quoi Cela montre que le président de la République ne met pas la charrue avant les bœufs. Il y a une planification on amène des projets de loi adoptés en Conseil des ministres et ensuite la mise en œuvre opérationnelle confiée au ministre des Mines. Voilà la vision éclairée de son Excellence le Président de la République. Pour en revenir au budget, Monsieur le ministre, vous avez un budget de 8 milliards 44 millions 830 006. en crédit paiement et en autorisation d'engagement. Le président Seydou l'a dit tout à l'heure, mais le ministère des Mines n'est pas le ministère de l'Éducation, ce n'est pas le ministère de la Santé, ce n'est pas le ministère où on a besoin énormément de milliards pour gérer du personnel. C'est le privé qui il y a des lois qui ont été votées partenariat public-privé pour essayer de voir comment, avec la planification, créer de la recherche à partir de cela. Mais je reviens à la création de Somisen, Michel ministre. La création de la Société des mines du Sénégal répond à la vision stratégique du chef de l'État de sauvegarder les intérêts miniers de l'État et des populations. Il est donc impératif d'assurer les conditions d'une exploitation, d'une gestion des ressources minérales qui doivent se la transparence façon à générer une croissance économique. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le plan Sénégal émergent, on a parlé de la transformation structurelle de l'économie. À promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. COP27 mi ngi am jamono ji. Il s'agit d'un objectif de l'article 25 25 1 de la loi constitutionnelle numéro 16, je l'ai lu tout à l'heure, numéro 2016 1 du 5 avril 2016 qui confère au peuple la propriété des ressources naturelles. Monsieur le je pense qu'un grand penseur disait que les grands esprits des idées, les petits, les, euh, les esprits moyens événements les tout petits esprits discutent des gens. C'est pourquoi vous avez vu de l'autre côté, c'est dégarni. Parce que ce qu'on discute, ça intéresse les Sénégalais. Des idées, c'est technique, c'est une vision. Il faut avoir un vécu pour comprendre exactement ce qui intéresse les populations sénégalaises. On n'est pas dans la politique politicienne. Et on peut aujourd'hui venir aux chiffres Parce que dans le fonds important alloué à l'État à travers l'appui aux collectivités territoriales, on peut parler du fonds constitué par 20% de recettes minières qui est déjà opérationnel depuis 2019. Il est destiné à l'ensemble des collectivités territoriales et plus particulièrement à celles qui sont impactées. Chiffre pour chiffre, en 2019, c'était 5 milliards 215 millions. En 2020, 5 milliards 447 millions. et pour 2021, l'estimation a été de 7 milliards, c'est-à-dire un bond de 2 milliards. Mais qui peut dire mieux Monsieur le ministre, je vais parler à, maintenant des redevances minières. Les redevances minières annuelles étaient de l'ordre de 3 milliards en 2012. Aujourd'hui, le montant recouvré tourne autour de 37 milliards en 2021. Donc je voudrais magnifier ces performances du gouvernement du président Macky Sall. Monsieur le ministre, le président Macky Sall a une vision, parce que certains ont parlé de Yonu Yokote en disant et le PSE, il n'y a pas de cohérence. Mais quand on est venu, nous, on avait un programme Yonu Yokote. On est venu au Sénégal, on a trouvé des documents de réduction pour la pauvreté, stratégie de croissance accélérée. Mais qu'est-ce que le président a fait Il a amené des experts qui ont réfléchi. On a pris une convention avec programme et les documents qu'on a trouvés pour avoir un plan Sénégal émergent qui va à, en 2035. Mais ça, c'est une vision. Ça n'a jamais au Sénégal. Et aujourd'hui, on se met là en disant que dugg na fii génn na fii nangam nangam te kenn xamul li ñuy wax absolument rien de li ñuy wax maîtriser wuñ ko moo tax chaque jour dañuy taxaw fii naan troisième mandat deuxième mandat ñun loolu intéressé wuñu le président Seydou Diouf laa di tout à l'heure gis ngeen li ngeen di bañ xam nga ku moom xar mi rek nga bàyyi buum gi wala ku dugg ci waañ wi nga ne turuma ñeex mi yéen a ko def yéen a dem commission woote pour lu tax ngeen woote xamuñu ko ñëw fii woote non lu fi xew ci diggante bi damaa bëgg ngeen wax ko sénégalais pour mu leer parce que nag aussi ñun ñëpp dañuy politique waaye politique bi ñuy def dafa war a am éthique politique bi ñu war a def dafa am logique politique bi ñuy def dafa war a am loo xamante ni ëllëg soo taxawee ci kanamu sénégalais yi nga wax leen li nga xamante ni moom nga def mais tu ne pas su guddee nga waxtaan ak nit ñi daal di voter entre quatre murs ñëw fii publiquement nga ne voté wax ngeen ne duñ ko wax pourquoi duñ ko wax parce que aussi parce que vous n'êtes pas cohérent et quand on n'est pas cohérent je pense qu'on est obligé de venir ici di wax wax dans le terrain monsieur le ministre je voudrais terminer pour vous remercier au nom de Abdoul Aziz Diop qui est un ami un frère un tout parce que taxaw na fii publiquement mu ne magam nga baayam nga xaritam nga nijaayam nga donc boo ko jëlee jox ko une société bu mel ne Miferso nous ne pouvons que être fiers de cela ba pare xam ne Vous avez un collaborateur sur qui vous pouvez compter. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, chers collègues. La parole à notre collègue Ndiagagnan pour trois minutes. Cher Sec, le suivant.